donc euh, nous avons ci comité d'organisation Cheikh Abdou Nous ko donc nous euh, waxtan fa mu am Nous fa teunkon donc tay yalla baxé ñu ñu ñëw donc ci fa donc nous euh, avons ñu jëm ci pour xam dal luñ ci tollu wala réunion de suivi wala réunion d'évaluation am mbégte nag donc euh, euh, sous-préfet bi dafa naa moom moom mooy première édition am fii si kër gi waaye mu ngi woon fii depuis kii la muy Mansour Diallo ñu ànd ci aussi euh, am na am na ñenn ñoo xam ne sax kii mu ngi woon Taïf commandant de brigade bu bees bi ñu ñëwaat léegi ni fii Koulibaly waaw donc commandant corps urbain aussi Diatta moom Diatta waaw moom nekkoon na fi sax ko fa dellusiwaat waaw <laughs> waaw gannaaw boobu xëy na bu ñu ci naroon kii mooy élevage aussi donc Diop dem na Tivaouane kii moo ko fa toogal léegi Senelec tam euh, léegi Touba xam nga nu mu toll donc ci secteur yu bëri donc dafa war a mën a demal boppam donc ñu détaché ko Thiès ba nga xam ne donc dynamique bu ñu nekkoon pour que mu mën a demal boppam donc euh, waaw am na ñeneen ñu fi ñëw ñoo xam ne ñoom ñooy élément précurseur donc euh, muy euh, monsieur Wade ak monsieur Fall nekk fi waaw donc ñëw ànd ak euh, ku ngeen xam di Lému Faye donc pour ñëw gën a yaatal service yi ak yooyu mu ñu demal dina boppam kon waxtaan nañu daal donc macha allah te xayma nañu bu ci nekk donc tàmbale ko ci wet wàllu karangé, zone bi zone gendarmerie la donc incha allah ñoom matukaay yëpp. donc fàttali nañ ko ñu waxtaan si ba nga xam ne incha allah ñoom dinañ ci ànd ak ak police tam surtout ci wàllu barrières yi ak yooyu ba nga xam ne ak euh, site yi ñu war a sécuriser yëpp incha allah donc euh, mu demee mu war a demee waaye itam comme ma kaaraange moom aussi dafay dem ba mu laal wàllu wér yaram ak wàllu sapeur pompier loolu yëpp ci protection civile donc euh, de façon générale yooyu itam waxtaanee nañ ko incha allah donc yooyu yëpp dem mu am wàllu yeneen yoo xam ne tam ay service la yoo xam ne.

waaye au début dafa doon am ay ay difficultés yoo xam ne souvent dañ ciy wax ki mais maire yi dafa ñaari at yoo xam ne macha allah réunion yi ñu dem rek dafay fekk donc euh, ñoom presque lu ci bëri voilà voilà presque dafay nekk cent pour cent presque waaw am na nag yu ñuy souligner muy wàllu éclairage public def naa ñoom nee nañu dinañ ci jublu fii tey ak suba waaw incha allah donc voilà Sonatel aussi donc ñu ngi ci mbir bi donc kër Soxna May nee nañ def nañ fa il faut def kër Soxna Bali donc fu mu nekk nii tey ñoom foofu la ñu xëy donc assuré nañu ne dina baax euh, ñaareel mbir bi moom defe naa waxoon naa ko sax euh, euh, ci CRD bi donc comme dañu ne wax lu baax moom mun na bañ a mun na bañ a doy donc ndax exemple la daal mooy communication bu Cheikh Abdou defoon daaw parce que dañ fi dañ fa tuddoon ñu def sensibilisation ci wàllu lu ñu jëfandikoo ay vivre nii surtout wàllu commerce ak hygiène.

donc di wax CDD bi yëpp en tout cas donc comme ni ñu ko doon def donc euh, incha allah ñu ngi ànd ak comité de l'organisation bi pour def ko donc euh, ni mu waree donc euh, ñu leen di gërëm di leen sant donc di teg aussi nuyoo ak ziar ci seen loxo yu tedd yi ci suñu tuuru bopp waaye itam ci turu CDD bi yëpp ngeen nekk suñu buntu ci kilifa yëpp rawatina sëñ Mountakha. CDD bi yëpp maa ngi leen di delloo nuyoo bu baax di leen sant bu baax itam di leen gërëm bu baax. ndax Cheikh Abdou Lahad mi ma leen booleel nga xam ne moom laa teg liggéey bi ci loxoom waxtu ne mi ngi may jox compte bi ci seen taxawaay bu rafet ak seen yéene ak seen jëf ci bis bi. Hmm, ba ñu wootee CRD bi ci njaareem ba léegi hmm, lépp loo xam ne taxawaay bu rafet la bu ngeen ci war def yéen koy def bu baax loolu Cheikh Abdou wax na ma ko te ni nga ko waxee bii mooy sa quatrième euh, édition. te am bu jot wax deug taxaway bu rafet nga ci def bu and ak yene ak positif loolu xam nañ ko yàgg mboolem ñu ngi fi nekkal tax na kon ma ngi leen di sante di leen gërëm di leen ñaan ngeen jotali sama cant ak sama gërëm ci gouverneur ci ministre de l'intérieur ba ci président de la république ndax xam ngeen ne bis bi ak xew-xew bi événement bi noko ko bokk mbir la mo xamne eh, dafa ñeel eh, yoonu mouride bépp ñeel islam bépp waaye dafa ñeel Sénégal gépp ndax li ko tax a jóg weesuwul eh, jaamu yàlla liggéeyal sëñ Tuubaa eh, te lañ ciy jëlee lépp ñu ci ñaan sunu borom def jàmm ci réew mi def xéewal ci mi ak surtout di gën a waxtaan ak taalibe yi ngir kenn ku ci nekk yoon wa nga war a jaar ngir sàmm sa diine fonk sa ak jàpp sa réew ak sàmm sa liggéey nga ko def loolu daanaka mooy mooy mooy mooy xew-xew kon euh, noo ko bokk autorité spirituelle yi ak autorité temporelle yi ñoo ko seq ni ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxee ci addis wax ne kullukum raain wa kullukum masulun an raayatihi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kenn ku ne ci yéen ab sàmm la te kenn ko nekk danga nga a toog fi kanam sunu borom mu laaj la da nga doon sàmm loolu nag ñi amee wàllu diini bi ak ñi amee wàllu euh, adduna bi ñoo ko bokk kon euh, benn biir la boo xam ne noo ko seq mooy euh, luy jàppandal dunduy niw euh, population bi luy saafara seeni yitte ak lu leen di lu leen di jox kaaraange loolu moom kilifa ñi amee wàllu diini bi ak ñu wàllu adduna bi ñoo ko seq te gis na ni yéen ngi ci taxaw taxawaay bu rafet rafet wax dëgg yàlla gisuñu benn rëq-rëq du ci lii passé rawatina boobu tey bi benn rëq-rëq boo xam ne. am na taxawaay bu ci autorité waroon taxaw te taxawuñ ko ci loolu moom wax dëgg yàlla gisaguñ ko loolu nag euh, xam na ni xëy na seen seen wareef la waaye nag it euh, seen yéene ju rafet xam gu ngeen xam ne noo bokk liggéey bi nu bokk réew mi euh, loolu it loolu itam am na ci bu baax a baax kon nag daal ci gàttal maa ngi lay ñaan nga jot suñu cant ak suñu ngërëm bu baax a baax gàttal ko président de la république ak mbooleem autorité yi nga xam ne ñoo ne ci diggante bi ni ma ko waxee rek man bés bi itam liñ ciy ñaan mooy yàlla def jàmm ci réew mi def naataange ci réew mi dëppale xol yi soob nit ñi ci siraatal mustaqima loolu rek mooy li tax mooy moo taxoon soxna may mën a daan def bis bi te loolu rek mooy li ci nekk daanaka waxal boppam ne mi ngi fas pas-pasam di ñaan yàlla ci barkeb sëñ Touba lépp loo xam ne lu ko yàlla ndara fayale ci bis bii di léegi lay toxadar yàlla na ko boole ak mboolem mbokk yi boole ko ak mboolem taalib yi boole ko ak mboolem jullit yi boole ko ak mboolem réew mi mooy itam loolu rek la ñuy continuer incha allahu taala sunu xol seet na bu baax a baax wax dëgg yàlla gisuma benn rëq-rëq wala ma dëgg benn rëq-rëq wala benn taxawaay boo xam ne waroon ngeen ko def te defu leen ko loolu itam nag xëy ne bu dee seen war bu dee bu dee seen warugar itam eh, def nañu ko ak mbégte ak cofeel ak positif ñoo ngi sant di gërëm bu baax.